jàmm. si yoo nekk. waaye naa ngi booy. yaa ngi si temps yi bëri na tànk sama gaal bi nu fa demee nii. ah aw ma droit ñëw fi. booy daa mel paquet maa ngay seet man moom maa laay seet si. ah mooy femme bu dëkk fii. waaw maman sama mag la sunu yaay ñoo bokk. Oh, xam. Ah. man moom miinante nag man damay dugg rek di génn xam nga rek. dëgg moom laay seeti fii. man de dégg fan yëpp sama booy ñu ngi naan maa ngi gis femme miy dugg sa gaale xam naa paa yi la fay seet. sa booy yi mën nañoo seetlu de. mu pa sëriñ bi pa sëriñ ba bu dëkk fii ah, pa sëriñ bi dëkk yow xam nga ko moom nga fi doon seet man mii xam naa sëriñ da leen fi la de lu leer daal wax fekkee moo la fi indi dafa gaaw si yooyu de ñaari njaq la lay jox yaa ma gën a xam wooy violé waaw na sa xel dal bu dee man ak man dong kenn du ma violé ah, kon baan xam yegg si biir xool baay ok nekk si jàmm merci Diouf xam nga li gën a métti mooy wor ba ngoon amoo loo ndogoo waaw hmm? ndaa koy léegi mu jeex lu métti yàggul de mbaay hmm? fan yii de li may dundee métti na hmm. yàlla baax na ah yàlla kay moom baax na waaye loolu wax jooju dafa yàgg ci réew mi de yow nit ñi ñoo dul dimbali doomu aadama yi da ngay xoolal tiim leen seen étage tiim la dëgg la de di roosi tiim la di roosi ginaar tiim la kay doy na waar daa koy roog a faaxa mais gis nga. damay naafile sax sama tànk di lox. waaw mais siin siin ban sama ban maam moo doon def boo ko tooñee muy noppi dajale leen ba mu mot douzaine mu boole leen duma. siin moom sànq man fay moo nekkoon seen euh, seen doyen. sànq man fay. il est salmon la yaa ndig. salmon góore waay. meelam kaanee fa sax ndax tàng xolam. koo gis ku sant fay xol day tàng. fay Abdou Dior Jumbo la yaa ndig. Ah. té la walu ay way seen rew la won jaxaw jaxaw seen ñun bu ñu rakkaaju won dekk dañuy naan aljana ak jaxaw lu ci dakk ñu naan jaxaw way jaxaw xam nga nak ndong lor bo ñew ba Kër Martin waaw bo duggé jof yor jurup jurup bo fa la sax man amon bass lé digël ñuko dekk ndong lor fi ne lor gog nga wax waaw bo fa démé waaw melam dafa sax keuni la ilaha ndax motax ku sante fay xol ko day day am am souffrement séeréer gis nga jom jom benn kaas la won séré a ko naan armée Sénégal gi ah maaleykum salam ah Njaay Njaay Njaay miñon naa fi yow a ñaaja góore waay Njaay Njaay Jaata da nga gennon dama gennon alhamdoulillah Njaay Jaata Diouf waaw dama bëgg xam yow loma ma ak loma ma miinee ah. Diouf sama kanam gi dama la cee won ñak fayda ah. est-ce que je ressemble à quelqu'un qui plaisante ah. dama la won indigne dama la won manque de valeur luy ndayam nga dem ci kosita naan ko man maak yow daa am lu ñu séq muy ci néeg bi ak si duus bi di ko wax ba wax ko fer yi ma takk pour lan bis bis loolu nga teg ko fan waxay na la waxay na la waxuma ak mbaay yow laay waxal defal ndànk yow laay waxal dégg nga gis nga du gis nga kosita li ma li ma waxal ah may ma loolu ko wax mais may ma yéen mu leen bàyyi jigéen boo leen gis rax leen eh déglu ma laa la man rax leen dina tax ngay toog fii di ma sosalaka wax lu kenn xamul ci weeru ko xanaa yow booy wax ba man naka jeg ma xam ne laa meñña ma dëkk ak yéen ko rek mbaay du dégg ah, mun naa jooy dëj may ma rek gis ko sita Kosita tey gémmiñam dina xonk coow te du yeggul. mbaa yow sa gémmiñ xonk. ok d'accord mais bu wax doon am du mbaay mii lay waxal ñoo bokk nekk di waxtaan mbaay mos naa ñëw na la mos naa tëddee njaay mi. déedéet xam nga kii ba léegi débouché wu ma man yéen lay wax rek bàyyi leen ma resté diñ rek. ah d'accord bàyyi ko ok d'accord ndiiki man leen dong laa wax Kosita woo naa ko ko Kosita. njaaye mii de bëtu l'amour laa koy xool bëtu l'amour su ma neexoon xool la bëtu bañal ndax gis boog jàllaa koy def yamoo ca ndax boo ca yamoon mu indi lak ma wax yamoo ca ne ma jàkk gis nga tubaab day naan il faut reconnaître et à moitié pardonner à moitié pardon comme noonu la demee pardon pardon njaaya yow xam nga ne doyoo ma la sax fobeeru kaay yow war nga koo xam jërëjëf fobeeru kaay sax doyoo ma la njaaya man moom ñoo lay dépassé waaye man mii mbaay du ma la dépassé ndax xam naa sa cër mooy la ma la waxoon nag la ma la waxoon ñëwal nga seet sa bopp waaw bët weex na mais dara moo ko la am na lu ñu waxante woon ñëwal ñu dindi loolu ndax ay kaymaa lañu baal nu rek ñëwal dañ laa topp xam nga yow yow eh, mais mbaay fépp yow nga ne ma mais a ah, dafa ndàkk yaa ne ma tëddi nga ko waroo ko woon a egg ko siita ndax yow yaa taxaw fii li ko siita wax dëgg la fen na waaye dëgg la yow yaa ne ma tëdd tëddee naa ko ci weeru koor wi deux fois ou trois fois ci koor ba ma naan la kon jaratul ngay woor yaa ma ko wax. waaw ah, loolu ci ko si te dégg ko fenn ko. loolu dama doon yéegal Griff. ah loolu ma doon yéegal Griff. nana ndax ko si tax war na dem ba si ndaw si di ma fenal bu ñëwee nag tey di ma dégg ak moom nana tey gémmi ñam xonk te du yee golo dinaa ko domb ba ah, xaji hmm, man de xaji rek xam naa fi may yem ak ñoom ndax ay fenkat lañu ah, xaji rek pël bee dàq fen ñëpp moo dàq fen ñëpp noppi fene fen ba yàqu du gis nga kii bu ñëwee gémmi ñam xonk te du yee Mama. Yai bui. Na. Yai. Na mu ñew. Mu ñew wala? Dédé xaar mu ñew. Yoro zo le quoi. Wa, yoro. Eh. Fi nga génn si quoi? Wa. Eh, fi nga nè, si nice na mà Loolu la dama tëddoon wallaay. Ma lay jélu ko ni. Lu tax doo nangu ku dugg sa néeg? dara néeg jigéen la te xam nga néeg célibataire dafa xaw a doy waar. waaw ak weeru koor bi loolu la rek. dama la indil. loolu la rek. jàppal. ah jëndal sama bopp. Ah. ma jëndaaleel la ko. ay ku la bàyyi tamit lii jaru ko ah, woon. ay lii jaru ko woon yoro ah lii yoro lii moom bari na moom ndoguloo yo bari na de yoro non a ko ak man wax naa la Sadio Mané sama copain la quoi ah, waa yoro dix mille bari na dix mille benn nit man lii kertipe moo ma ko yónnee kertipe jaata crépin waaw kertipe jaata crépin <laughs> waaw kertipe <laughs> <laughs> sama la moo la yónnee dix mille moom bi muy nga ne num tudd kertipe jaata kertipe waaw waaw bi mu nekk duggee njulli mhm. maa nekkoon salbeem quoi maa ko yoro woon kon yow yoro mag nga de <laughs> de e carte be xale la de zoor yi <laughs> yow amoo zoor yi li ñu judduloo sax dañuy mun football waaw dëgg daw bi moo dëgg la def mag quoi tout cas kontaan naa mm. ak dix mille ku la ko jox ne la ko xam nga ne kooku bëgg na ah non man bañ man ko yàlla fay ma bëgg nga mm-hmm. duma góoru fenkat mm-hmm. góor yi nga xam ni

sëy <laughs> ngeen ah. sëy quoi waaye loolu baaxul ko xam moom sa jëkkër waaw bu ngeen sëyee xam nga baaxul baaxul nga war si am sutura dëgg la waxuma ne nag koo xam ni ah. yow gis gisuloo sax silibam ngay wax gis naa feram waa léegi loolu lu ko fi indi séeréer bi wër di dee yëgoo yëg naa ko kay man kay lu moo tax ma lay laaj lu ko fi mu ah, dama bëgg nga xam man ak ñoom bokk ñoom man du ma fenn waaw du ma fen quoi surtout. dëgg di fenal jigéen. dëgg la jigéen da nga koy suturaal dëgg la. ñem bu la mayee sax. Mhm. jëlal nga noppi. Mhm, mhm. man noonu hmm? bu la mayee bu la mayee bu la mayee si moom. Ah. xam nga. waaw action bi ni mu dem moo tax bugguma jaar si wax yi quoi. dëgg la bu leeree rek. dëgg dem yaram yi yëngatu. dëgg la xam nga dëgg la moom du ma mer du ma wax dara ndax jox na ma mburu ak dix mille. c'est moom doo ma mer loo wax dëgg yàlla. non non non. kontaan naa trop. yow soo naree mer man yàlla naa mer. bu mer man bugguma mer moo tax bu ñu la déplacé si kër gi mm-hmm. kat seen koon jëru ko ñoom jëru kat seen koon da ngaa galant nag <laughs> surtout ni ngay waxee macha allah <laughs> macha allah góor gënu la nag mais normal nag góor gënu la macha allah jërëjëf on tous les le bois les tout ferré waaye normal quoi kontaan naa en tout cas billaay barki sëriñ billaay sama xarit la ak Massata Diack li ma yaakaar sama moom sama diggante moom yàlla bu ma ko am dangaa tooy maa la ko wax loolu damaa woor waaye tooy nga moom <laughs> est-ce que comprendre nga apprécier le apprécier le quoi. comprendre <laughs> naa apprécier le jërëjëf merci ah, yaa ngi siiti moom. oui jërëjëf <laughs> jërëjëf. jërëjëf ok. tey ngaa ñëw ma may la si mburu bi. ah déedéet. wallahi xoolal. bu benn mburu desoon si adduna bi nga ma jox la ko man su mburu amatul ma nekk mburu ma nekk si sa yaram nga lekk ma ko. <laughs> waaw